également tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet toujours dañuy am mbégte ak contenté di ànd ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Guissé ak alors émission la bi nga xamante ni donc comme ni ma koy faral di waxee dafay collé ak actualité bi mais également dañuy jël ay ndaanaan di leen invité ñuy waxtaane wala sax dugg ci seen domaine ñu waxtaan ak ñoom euh, voilà pourquoi pas alors tey nag dañu am ay invité yu spécial ki nga xamante ni moom mooy Leyti ak ki nga xamante ni moom mooy Rose ñaari frères yi nga xamante ni ñuy yëngu ci wàllu mode ay mannequin lañ ah, donc lu na la ñuy def si wàllu mode mais loolu yëpp di ko xam bu ñu duggee euh, ci biir waxtaan bi balaa ñuy sori ci nuyoo bi dañu leen di jox kàddu gi ñu nuyoo mbokk internet yu euh, Dakar Net si kan laa war a njëkkee léegi <laughs> wala kan moo si mag jëpp si kilifa bi moom ay Baye Fall lañ man moom xam naa ne maay kilifaam. Ah, ah. d' accord donc li may wax. Ah, vas-y na kenn na kenn jël. mais ñu ngi leen di nuyu. di mm-hmm. nuyu képp koo xamante ne yaa ngi suivre émission bi ci Dakar Net. Mm-hmm. di la bëggee bu baax di la jox sa wàccuwaay. Mm-hmm. waaw c' est lay ci alxurus maa ngi lay ziar. di mhm. euh, di nuyu ñi ma fi fekk di nuyu waa kër gi yëpp. Mhm. di nuyu euh, ñi ñuy seetaan di nuyu si euh, voilà suñ fa ñu jógee. Mhm. di nuyu suñuy xam suñuy ànd jàmm di nuyu aussi les fans. waaw surtout ça donc voilà di leen. fan ci yow n'importe. d'accord <laughs> yow ci Euh, comme ni ma ko waxee tey aujourd'hui on va partir dans l'univers de la mode ah dañuy dugg ci mode bi jéem a waxtaan alors ci euh, damay njëkkee ci euh, Rose alors Rose pour sénégalais yi nga xamante ne xamuñu la. déjà boo doon présenté sa bopp kan mooy Rose. loolu dina genre Rose. un gars bu humble. Mhm. bu simple gars boo xam ni voilà pour nga fekk ko fa mu dëkk xam ne lii lay yëngu lu jafe la aussi parce que comme ni ma koy waxee tout le temps comme comme noonu rek. Mhm. comme ni ma ko xee ëmb bi mu ngi mu ngi ci lépp. d' accord xaaral ma gën a préciser sama mhm. laaj bi donc boo ñu doon présenter sa bopp ci sa milieu professionnel bi nga nekk. Mhm. muy muy bi lan nga exactement sinon lan ngay def exactement. ok Rose euh, nañ ko xamee ci mannequin podium. Euh, genre mais euh, ñenn ñi dem nañ ba léegi dañoo jàpp ni sax modèle la parce que ñoom voit tout le temps sur les photos. et tout pour ñoom voilà ci côté boobu laa gën a basé wu alors voilà ni ma comme ni ma ko waxee gars yi toujours. podium laa gën a maîtriser que photo wu sax. Mm. comme ni ma ko waxee gars yi gars boo xam ni voilà. nu mu duggee ci défilé yi nga gën a fort que shooting. donc ñi ma xam ci milieu bi xam nañ loolu donc yàgg naa euh, yàgg naa yàgguma parce que voilà ni ma lancé au fin 2018 laa dugg ci milieu bi voilà on a prouvé avec le corona moo tax lu bëri xawoon na des quoi waaw loolu la yoon rek euh, mm-hmm. voilà d' accord alors ma dinaa dinaa ñëwaat si yow léegi ah donc damay jox euh, sama frère bi Leyti Leyti ya tamit même question bi laa lay waaw Lady Zo maanaam c'est un sportif d'abord man je suis un sportif. donc hmm. euh, képp ku ma xam sax ci loolu la ma xamee. ban sport ngay pratiquer. athlète hmm. def naa football joué naa AS Gorée. Hmm. US Gorée joué naa AS Douane. athlétisme tamit Douane laa nekkoon. di ci remercier ñëpp ñu nga xamante ne ni bu ñu suivre émission bi dinañ ma reconnaître quoi. en même temps tamit après par la suite ci laa dugg ci modèle bi quoi waaw ça fait pas plus euh, quatre ans. yàggul noonu donc képp ku ma xam daal ci sport que ma gën a xamee modèle bi tamit bon hmm. dem naa ba gars yi ràññee ma ci hmm. en même temps je fais euh, le design hmm. par exemple tey yi man ak Ross lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy shooting ci sama marque la quoi moom mooy ambassadeur bi en même temps parce que comme suma doomu ndey la ñuy liggéey en même temps bokk lépp bokk milieu bi coaliser maag moom di liggéey. Mhm. donc euh, mooy loolu daal. Mhm. waaw alors xam naa du du du ñàkk ah, sama technicien bi dina dina dina afficher photo yi. parce que gis naa ay photo yu yu nice quand même nga xamante ne yéen ñaar bokk ngeen ko alors. Mhm. bu ñu gënee avancer tuuti euh, déjà su ma la déggee Ross yow bi ngay dugg si milieu mode bi dafa tombeel dafa dënga dugg rek yàggul dara corona bi ñëw parce que corona la. Ah. déjà corona bi na naka naka yow ngay dugg si benn affaire am lu si naka nga si sa progression. genre on peut tëj nañu benn côté mais euh, comme ni ma ko waxee toujours euh, gars il faut que euh, voilà lépp détermination la. Mm. day day kii nga am foo taxawee am nooy préparé woo parce que corona bi bu ñu fekk nañu ñu nekk ci déclassement. Mm-hmm. donc bu fekkoon dañoo dugg tag rek. Mm. defuñu dara ñu ñëw fekk mu fekk ñu fi dina boobaa dina gën a métti ci ñun. Mm-hmm. mais ba ñuy bi ñuy bi ñu duggee fekk na corona bi fekkante na ñu jot a teg benn jéego ci millier bi. Mm-hmm. donc euh, mu am lu mu demee ñun mais teewuñu daanuñu toog di xoole xam naa loolu loo tax ñu bëri doon jàpp ni modèle laa gën a doon que mannequin parce que toogu ma mm-hmm. tout le temps dama doon def euh, takk samay masque dugg ci studio yi photo wu sensibiliser population bi et tout à travers no shootings et tout mm-hmm. Mm-hmm. voilà donc loolu la quoi moo taxoon ñu am xaw a am sens ci affaire bi waaw euh, donc Leyti yéen ñaar yow wala yéen a bokk moment bu ñu ci duggandoo bon parce que yow bi ko sportif nga woon mais bi nga duggee ci mode bi carrément période boobu la 2018 ah. te malheureusement dogguma la dafa tombeel tamit programme yi dafa wàññeeku waaw alors bu ma la bu ma leen laajee bi ngeen ci duggee ak ba léegi hmm. est-ce que liggéey bi yéen a ci gis seen bopp waaw liggéey bi maanaam hmm. liñ ci war a gisee suñu bopp gisee wuñ ko gisee wuñ ko noonu récemment rek comme hmm. liñ doon souligner ci benn émission rek ba yenn gars yi gis ci seen bopp maanaam dëgg neexul parce que booy liggéey bëgg nga ci dara. ci lépp looy def. te comme li la Ross wax rek même corona bi mu ñëwee lu mu metti metti mm-hmm. ñu ngi doon def suñu shooting. def suñu vidéo dugg si studio yi xam nga mm-hmm. sensibiliser. juste pour bañ a toog. Mm-hmm. mais liggéey bi maanaam lépp loo xamante ne ñu ngi ko ciy def. au retour euh, gisaguñ ci suñu bopp à cent pour cent. tax loolu même à cinquante pour cent. tax loolu. waaw parce que euh, dafa am benn part boo xamante ni euh, part de responsabilité les organisateurs par exemple ñi nga xamante ne ñooy organiser défilé yi. Mhm. événement yi promoteurs yi genre yooyu quoi mhm. maanaam ni ñu war a joxee àq mën a kaay dafa des néew ma jox joxuñu leen seen àq parce que récemment souligné nañ ko mais ñoom dafa mel dégg gu fu ñu waxee mhm. maanaam nit ki bu la liggéeyee nga war ko fay cent franc mu leer na ne cent franc bii moo ko moom jox ko ko liggéey bi muy def cent franc la yelool jox ko ko mais da ngay gis koo xamante ne par exemple dangay liggéey mu leer ko ne tey jii li mu lay fay maa ngi ko souligné récemment ay affaire bi ay ree la leen def mhm. maanaam dàll yi nga xamante ne yow moom ngay ñëwee sax mhm. moo gën a cher cachet bi yow déjà li ñu lay jox boo ci passé mu jeex mhm. donc day am événement yu bëri yoo xam ne ñu dañ koy tardé à cause de ça sax des fois ay événement yu bëri waaw alors pour pour séddale pàcc bi ah pour séddale affaire vu que ñaar yéen a dend donc damay damay ñëw ci Ross Ross li ma bëgg a laaj euh, pour damay relance en quelque sorte si question bu mu nekk di développé nii mooy maanaam doxul moo tax yéen ni ñu leen war a fayee duñ leen ko fayee. genre euh, milieu milieu mode bi dox na parce que euh, comme tey bu ñu duggee ci euh, promoteur yi li mu doon souligner sànq. Mm-hmm. parce que yow boo amee sa événement nga am ay liste yu war a ñëw normalement tey jii nii y des événements yoo xam ne fii nii mën nañ leen citer mais comme bu ma ko permettre. Mm-hmm. dañuy styliste bu ci participer au moins le prime li gën a tuuti li muy joxe c'est à cinquante mille francs. Mm-hmm. nga def casting woo quinze mannequins. imagine toi nga am 10 stylistes cinquante mille francs cinquante mille francs nga am partenaire donc partenaire bi ñëw ñëpp xam nañ partenaire nu muy ñëwee mais partenaire da koy dégg nag waaw partenaire da koy dégg parfois comme ni am na ñoo xam sax dañuy am ay mm-hmm. nga gis ñu yo teg affiche yi tout pour man kenn du ñëw yëkkati benn tey benn sponsor fële jëlee ko fële def ko ci sa benn affiche mm-hmm. te bo te te joxu dara wala mm-hmm. amul foo leen jot a jaar donc da ngay gis benn koo xam ne am na affiche am day riche day am ay sponsor et tout stylistes yi dañ koy fay mu woo mannequin yi ñu ñëw toog xam nga def casting bu réussir nga jaay événement am nga ñëw jour yi jot lu génne contrat jox la du demee lu dul ay paasu yoo xam ne voilà boo ci. Mhm, doo ci mën sa paas taxi ñibbi ci banlier bi. donc ñun loolu noonu ci loolu la ñuy souligner quoi comme loo xam ne tey jii nii euh, voilà métti nañu. Mhm. et que comme nuñ ko kii waxee la fois passée wax nañ ko mais ñoom lañ ko jëlee. benn affaire boo xam ne comme si que ñu dañ leen non ñoo ko jëlee noonu promoteurs yi wala wala wala wala stylistes yi wala wala genre stylistes yi dañu ah, maa ngi ciy jaaraale leeralaale foofu noonu parce que euh, stylistes yi la fois passée dañu jàpp ni ñun bu ñuy wax côté stylistes yi dañ naan leen juste que shooting yi côté shoot laay waxee ñoom mm. parce que bëri ay ay styliste euh, promoteur mm. am na ay styliste yoo xam ne événement ba événement la ñuy dugg mm. joxe seen xaalis wane seen collection donc ñooñu noonu buñ leen bu ñuy am lu ñuy cité ñoom juste si shooting yi nañuy fay mannequin yi ci shooting yi fay ji mënoo woo mannequin jëlee ko dakaar yóbbu ko ba Thiès ñibbi jot nga naan ko am jàpp ci dix mille francs ci ko xam ne toute la mm-hmm. journée téye nga ko mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. léegi promoteur bi li ñu koy blâmer mooy que cachet yi les cachets cachet yi waaw cachet yi cachet promoteur milieu bi am na xaalis mais ñi ko yor ñoo ko yéenewul ñi ngi koy yox encore une fois mm-hmm. am na xaalis parce que da ngay def ay événement boo xam man def naa événement boo xam ni man on m'a payé euh, on m'a payé tey mën naa koo wax mm-hmm. on m'a payé euh, cinq mille mm-hmm. am na ci ay genre yi mannequin yu ñëw on l'a données ay dix mille francs mais euh, Leyti xam nga dañuy wax naan bukki bu yabee waxambaane sa doxin bala mm-hmm. mais est-ce que gisoo leen yéen yéen si boppam yéen a dese professionnel wala mm-hmm. yéen a topp seen passion ba nga xamante ni fu ñu leen woo ngeen dem parfois leen woowu sax du ngeen dem est-ce que foot bi nekkul en quelque sorte si yéen la euh, globalement mm-hmm. mais ci biir mannequin yi daf ci am ñoo xamante ni xamuñu seen valeur chaque jour mooy li may wax booy rek maanaam fu ñu la woo nga dem li nga wax c'est am na ñoo xamante ni tey dañoo dugg ci mannequinat bi juste pour buzz pour feeñ te kii feeñ yàlla moo koy dogal. nit ki li nga war am. kenn mënu ci dara. bu la leeree tey jii da ngay dem fii on te respecte pas on te paye pas bien. te yow nga ne yow sa lii da ci dugg bëgg ci nekk professionnel. bëgg ñu dégg la ci ëllëg. il faut nga xam bu baax ni ngay demee ak euh, valeur bi ñu la war a jox bu ñu la ko joxul nga toog. parce ñun tey jii du ñu dem mu ko casting ba nga xamante ni tey bu ñu fa demee leer nañu ne événement bi yàgg nañ faa dem te duñu fay peut-être c'était le début parce que tout début est difficile nit dina organiser nga ñëw xaar ma teg ci loxo si mais loolu moo loolu mm. ñun moo ñu tardal mm. loolu moo ñu tardal da ngay gis kenn ku créé sax benn produit am ñëw ne la defal ma lii jàpp ci jàpp jàpp ci moo ñu tardal mm. te ñun tey jii maanaam ba ñu ñu jàppale kenn mais dañu bëgg lépp loo xamante ne nit ki yelloon na ko rek nga jox ko te di lancer appel tamit bépp mannequin ñu gëm seen bopp tey jii lépp loo xamante ne yaa ngi ciy dugg mhm. bul ci ñàkkal sa bopp fayda bul ci fës pour buzz dem ci ak fulaak fayda ba nga xamante ne ni ëllëg il faut être rare mhm. ñu lay namm quoi ñu lay namm maanaam namm boobu maanaam yaa ngi muñ parce que dafa metti tey yi nga dem gis sa morom yi di défilé mhm. défilé woo dafa metti te mu nekk sa passion mais maanaam foofu la ñu foofu la ñu européens yi rawee foofu la ñu américains yi rawee loolu laa wax. parce que ñoom digne quoi. il faut être digne ba pare xam sa valeur loolu mooy tax ëllëg bu ñu lay fay. da ngay am lu bari. keroog loolu lañ doon wax fële ne les raar rares ça coûte cher. waaw mais ça dépend en de la qualité. mais mais aussi il faut que xam nga am na loo xam ne yaa koy jox sa bopp. nit ki mm-hmm. yaa jox sa bopp cër ñu jox la cër. Mm-hmm. yaa jëmmal sa bopp ñi ñi jox la ko. Mm-hmm. donc mënuñu gis yow tey ji événement bu ros tëggee nga daw ñëw. bu mbay tëggee kenn xamu ko nga daw ñëw bu bu benn faatu tëggee fee xamoo ko nga daw ñëw kooku lu mu la def yow la. <laughs> alors euh, euh, ba léegi yéen ci seen émission ah gisee ak euh, ma dalal fi ñaari ndaanaan yi nga xamante ni ay acteurs de mode lañ nekk ay mannequin donc di yëngu ci wàllu mode bi donc voilà di ay professionnels alors li ma bëgg a laajaat mooy dama ni dama bëgg xam yéen ndax da ngeen nekk ci agence wala nekkoon leen ci agence. waaw ah, dañu nekkoon ci agence. da nekkoon ci agence dañu nekkoon ci moom mi man. te mm-hmm. yàlla dogal na ni ñun ñaa bokkuñu woon agence sax. Mm-hmm. mais comme ni nga ko waxee tey jii nii ñun nu ñu toog euh, nu ñu nekkee benn nii formé wu jóge suñu agence yi ku ne ñu ñëw doon benn équipe formé wu doon benn nii moom lañ gën a gis suñu bopp ko alors bi ñu nekkee ci agence yi hmm. parce que tey ji nii yu bëri ñu ngi koy doxal suñu bopp hmm. comprendre lu bëri ñu ngi koy doxal suñu bopp agence bi mënuluñu ko xaaju xaajaat bi mënuluñu ko hmm. donc loolu kan ça veut ka que Sénégal tey bu ñu dee xool tey jii nii mën nañ ne ay nañ bàyyi di wax agence quoi ay tur tur agence nañ bàyyi di wax agence te tuddee ko école école de formation donc parce que on te forme mais duñ la jox li ay ay marché duñ la jox def la promouvoir donc loolu du loolu du loolu du agence quoi bu ñuy wax agence agence mooy kii xam ne day former euh, yëfam ba te ba ñu doon dara mu dugg ci dëkk bi promouvoir leen muy défilé muy publicité. waaw mais mais mais mais mais dogu doguma la doguma la euh, doguma la Ross mais léegi. Mhm. wax naa ko sànq xam nga mode Sénégal bi malheureusement. ni mu war a am na ay talent bien sûr bëri na ay talent dañuy dañuy dañuy dañuy wane seen bopp tout le temps ci ci défilé yu mag mais problème bi est que nekkul ni industrie bi moo doxul par exemple état duy faral di jàppale mode bi sénégalais yi xëruñu si mode nii de trop bëgg nañ nit photo wu rafet ñu nu ko fan envoyé ma ko ma esthétique ko mhm. xamuñu en comme événement am défilé mode am nga dem dagg sa benn dix mille francs mhm. wala sa cinq mille francs ñëw toog di xool ay modèle ñun amuñu habitude boobu est ce que nekkul loolu moo tax yéen li ngeen xamante ni moom ngeen def passion mu xaw a metti en quelque sorte léegi sénégalais boo xoolee maanaam loolu loo tax gars yi naan sénégalais xamul art hmm. même bu dul défilé bi kese ci yeneen pàcc yu bari des fois gis kuy jaay tableau tableau bi mu leer na kii li mu defar dafa doy waar hmm. mais da lay leer ne kii li man li ma ko jaayee sax hmm. bi ma ko nee prix bi ma ko waxee sax damaa rus Sénégal xamul aar. xamul valeur aar. Mhm. moo tax souvent da gis koo xamante ne day jóge fii bu demee Europe wala mu dem Amérique wala mu génn dem Maroc bii rek. Mhm. day day exploser. day day toj. waaw te loolu tey jii war naa mën a nekk fii parce que mhm. am nañ talent gëm nañ suñu bopp mën nañ li ñuy def. donc il faut tamit gouvernement bi bàyyi xel ci côté boobu. ci côté jeunesse bi parce que un jeune qui se lève pour sa battre par exemple. ci ci ñun ñu ngi yëngu ci wàllum design. ñu ngi yëngu ci wàllum xam nga. maanaam ñu teg ci loxo bu baax daal. waaw tey teg ci loxo dama ci euh, lancé dama ci kii euh, lancé message état bi. donc hmm. di leen wax euh, carrément kat tey jii maintien yi ngay gis xaaj bi yëpp comme tey man mi je dama def sama formation marketing yi tout. Hmm. donc tey jii nii ñu mën déposé nañ fu ne. def nañ jot nañ dafay stage nag mais li lay wax Sénégal fii Kumba am ndey la hmm. Kumba amul ndey donc euh, bralon waaw bralon moo la fiy jàllale donc boo gisee genre jeune yoo xam ni hmm. tooguñu di dépendre ci yenn ñu ngi jéem a aussi topp seen passion ba tey mu mujjee nekk business si ñoom donc hmm. ñooñu da leen war a jàppale pour man parce que defuñu lu ñaaw lu ñuy def nii man ki naa métier noble la parce que tey ji nii métier noble lu ndaw parce que tey ji yow benn styliste bu ñëwee mm-hmm. créer benn costume am mm-hmm. wala créer benn grand boubam wala benn taille basse am mm-hmm. balaa ministre bi di ko sol mannequin da koy sol te même tenue boobu ci défilé bi da ngay pare nga simmi ko ñu jaay ko benn benn ministre wala jaay ko benn benn député wala genre donc euh, le métier de mannequinage c'est c'est noble quoi te ñun dañu bokk aussi li euh, ci ñi acteurs yi développé culture sénégalaise donc ñun nañ ñu jox suñu cër boo demee Nigéria wala euh, même Côte d'Ivoire bi man yi jox nañ leen cër de mais Sénégal xawma comme ni nga ko waxee sànq peut-être ci ñun la. Mm-hmm. mais peut-être tamit état bi am na lu mu ci kii parce que moo waroon a tey jii nii euh, comme ni mu jàppalee euh, fecckat yi. ak mm-hmm. woykat yi. Mm-hmm. ba ñu mën a am benn genre kii boo xam ne comme tey jii Sodav di jàppale fecckat yi ak waykat yi. waroon nañ mën a xool lu ñuy jéem a élargir affaire yi xool man yi jéem a sensibiliser toog. wax ak euh, chef d'agence yi mm-hmm. ñu jéem a xool lu ñuy doonee ñu def link sax ñu ne waa SODAV mm-hmm. dugal ñu ci biir parce que lépp ci culture bi la mm-hmm. comprendre nga mais tey ji da ngay gis art euh, da ngay toog ak mannequin ne ko am nga carte professionnelle wala sax fi ngay kiiyee mu ne la luy loolu kooku ka ça veut dire jàppale wu ñu ko te jaakaar na ci loolu pour mm-hmm. dimbali yaayam wala wala dimbali ci papaam parce que mm-hmm. tamit pour man euh, time is money mm-hmm. ñun loolu la ñuy dund muy moom di man donc waratuñu jug di topp ci tali bi wala dem toogal benn chef agence di def golo bay bay baabun di dundee loolu amul sens tamit alors euh, bëggoon nañ nag waxtaan bi gën a yaatu mais comme ni ma koy faral wax li duuf ci nag bi xajul ci cin li mais fi ñuy la ci waxtaan bi mooy yéen ñu bari dañ leen di taxé borom ñaari tur yi Euh, lu tax déjà rek ñu leen koy taxé loolu question la man daf ma def question lu tax déjà ñu leen koy taxé peut-être yéen di ngeen si am tontu ah. comme wala yéen soxna di si à euh, ah, comme ni <laughs> dama laajte nag li li ci toogaat maa ngi maa ngi nuyu Blessing bu baax. bu baax a baax Blessing maa ngi koy nuyu di nuyu maire bi sama yaay. Mm-hmm. di nuyu ñëpp daal. Mm-hmm. waaw ñooñu maa ngi leen di gërëm sama waa kër ñëpp. Mm-hmm. maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne nii dafa yàgg ci milieu bi. waaw man mii balaa ma ciy dugg loolu taxoon na dugguma ci parce que dama ci daan dégg ay rumeur mm-hmm. mannequin yi dañoo nooy mannequin yi ay góor jigéen détails yooyu xam rek mais nit ki lépp loo xamante ne nii gëm nga ko nit ki sa gëm ak mm-hmm. sa sa maanaam niñ la yaree mm-hmm. nit ki da am base tey jii fépp foo dugg mën nga fa génn dignement te ëllëg kenn du la ne yow mi yaa fi def lii wala yaa fi wax lii wala ñuy am ci yow ay preuve détails yooyu man maanaam côté boobu laa bëgg gars yi di di ñu dégloo. Mm-hmm. récemment waxtaan nañ mais gars yi dégguñu dégguñu daal. Mm-hmm. léegi je veux éclaircir. Mm-hmm. une bonne fois pour toutes. métier bi euh, maanaam képp koo xamante ne dugg nga ci. da ngay gëm sa bopp ñun ay Baye Fall lañ. ñun ay mannequin lañ mais ay Baye Fall lañ. donc loolu rek ça résume tout. waaw. Euh, li mu la bëgg li mu bëgg a laaj ndaw ah mooy. bu njëkk mannequin bu doon dox si podium dafay dafay xaw a jigéene bu njëkk man loolu laa doon gis. Mhm. mais léegi affaire tendance bi mi ngi wàcc. Mhm. ay góor yàlla ñuy dox nga sant ñi ay góor lañ donc man est-ce que yéen parfois. Mhm. borom ñaari touriste boobu duñ leen di aborder si boo leen wàccee ci kaw seen bi est-ce que yéen doo leen am ay tentative soit. benn benn maire na ma yàlla baal si kàddu yi yenn nga xam ne dañuy wër seen genre yi jantal njool am benn physique bi est-ce que parfois borom ñaari tur duñ leen wër déjà mais man jantaluma njooluma non après ñoom gars yi duñu ah, na ma yàlla baal seen numéro bu góor la wër mm-hmm. est-ce que duñ lay léegi non loolu moom mënut a ñàkk. loolu mënut a ñàkk ci liggéey yëpp la kuy musique kuy fecc kuy def mot maanaam aar moo doy waar. di nga si gis nga si am benn abordé nit nga wàcc mu wala téléphone wala mu wala mu. waaw grand mu bëgg sa numéro après wala di la wax wax genre waxee. non loolu euh, loolu mënul ñàkk su ma nee mënul ñàkk mooy di nga am ñoo xamante ne dañ lay bëgg rek te yàlla tax. man tey ji mm-hmm. ñi am sama numéro ci ñi nga xamante ne nii dañ ma bëgg te yàlla tax rek. Mm-hmm. bari na torop maa ngi leen di nuyu de passage képp koo mm, mm, mm. maanaam dinaa tontu ci loolu loolu maanaam su ma nee mënul ñàkk mooy am na am na ñoo xamante ne ni tey ji li leen tax a jóg mooy bon comme li nga wax rek borom ñaari tur yi day am mais ñun ku ñu xool comme li ma waxoon keroog rek loolu laay waxaat parce que comme li nga wax sànq euh, bukki bu wax bu yabee gaynde xaw ma ci ni muy ci ni muy doxalee la maanaam maanaam nit ki bu la yabee rek ci sa comportement la ak ci sa maanaam ni ngay dérouler. Mhm. waaw mais du ñàkk ay tentation loolu am na mais comme li ma la waxoon sànq loolu mooy ñëwaat. ñun mhm. dañoo am base kenn mënuñoo. détourné détourné waaw man loolu laa gëm kenn mënu maa détourné. Mhm. du ñàkk ay tentation mais kenn mënu maa détourné man. kenn mënu maa détourné haut et fort. Mhm. kenn mënu maa moom moo ko wax. alors Rose looy looy daanale. Mm, juste di wax euh, que comme li may li may kon ne di di di di xeex rek. lu ñu yow léegi da euh, Rose boo léegi moo la gën a sadik. Mm. da ma da nga ma ndur ku lewet. <laughs> non te gars ku lewet la ñuy wër. non mais gars yi nga genre calme nii mm-hmm. duun yi nañ naan non non mais xam nga xam nga xam nga noonu. mais juste ànd boo gis day am lu ma fa demee parce que ñëpp noonu loolu donc euh, damay wax gars yi juste que booy booy di ñëw ak ñii fi nekk que nañ ibbi seen bët ñu mm-hmm. xool mm-hmm. jàkkaarloo ko euh, réalité bi mm-hmm. xam ne lii mooy dëgg donc euh, pour affaire loolu noonu dama leen ci ji woo bu baax a baax a baax ne leen carrément affaire bi du question chaque jour nga war a takk say dàll fu ñu la fekk yaa ngi topp tali bi wëri ji ñi ñeetu non non yombal bu leen yombal seen bopp public bi xaw leen cher te ngeen jéem a en plus que am na benn affaire boo xam dafa ma metti ci booy may gis léegi. na ngay tëjee quoi waaw dama euh, kon tay jii nii bu doon tay jii fecce dañuy jàng cas te am na cas ca ca cas. Ah. donc dañuy jàng cas di ko wéyee di ko tëjee temps bi te ca ah. ca cas mu ngi fi. Ah. donc booy nañ jël seen temps jàng. waaw jàng day maanaam maanaam jàng day bëri maanaam li muy wax nii dafa am solo. parce que léegi bu njëkkaat sama genre dañuy yàkkamti dem casting mhm. parce que dañ fay fekk ay gars yoo xam ni mhm. sont sont des sont des yoo xam ne ay références lañ genre mhm. ci côté dox quoi waxuma leneen maanaam da ngay xool ci ñoom di référé wu pour jàng dox ci loolu ay gars jantal mais léegi da ngay dugg casting yow sax da ngay indi sa daal di hésité ndax da war nga sol wala doo sol ndax booy nga fay fekk tey mooy waral toujours euh, baatal ñu day yomb donc nañ defaraat toogaay yi nañ defaraat toogaay yi la bu ñu leen di wax naan affaire yu nangam ak nangam ñoo xuñu woon pour dal les gars dañ doon wax pour jéem a milieu bi ñu nekk ñu defar ko mu normal état bi mën ñu jox cër. Mm-hmm. parce que mu fecckat yi am na ci am na ci musiciens yi mais donc ñoom ñëpp. dañ ko jéem nëbbu ci si la ñuy def. Mm-hmm. def ko mu xaw a jaar yoon ñu nekk ci leneen. Mm-hmm. donc loolu laay woo booy kel ñëw leen ñu jàppee milieu bi. Mm-hmm. góor na góore jigéen jigéen ne après leneen nag. seen fii la ñu nekk ci quoi waaw bu jeex alors léegi looy daanale. Eh, merci maa ngi aussi remercier sama yaay ak sama papa. di remercier euh, Blessing suñu ménageur xam nga di remercier aussi. waa mais maanaam ñu ngi koy remercier. ñu koy di kontaan ci moom bu baax daal. waaw di sama sœur parce que di remercier tamit Mamoun. waaw Mamour Mamour Couture. moo fi jaar. Mhm. parce que day liggéey ak El Hadj ah. la boole <laughs> a solaat parce mooy. Mhm. comme li ma la wax sànq ci design bi El Hadj Saïd mooy sama marque. Mhm. moom mooy ambassadeur bi lépp lu ma mës a créé moom moo koy njëkk a sol. man ak moom ñu tracé ko xam nga yaatal ko. mooy marque El Hadj Saïd mi ngi ci Instagram mi ngi ci TikTok. d'accord donc euh, mooy loolu daal maire bi Aya. <laughs> waaw di remercier gaa yëpp Fa Kumba Sarr waa ëttu Touré Kunda xam nga di remercier ñëpp daal ze mm-hmm. ñëpp mm-hmm. kontaan naa daal di leen remercier aussi di leen ah, tamit bu baax di leen remercier parce que invitation bi yombul daal parce que liggéey boo gis rek dina am ñoo xamante ne peut-être mm-hmm. ñoom la ñuy duut baaraam te bi nga xoolee ba xool ñun nga ñun nga woo. Mm-hmm. donc ñu ngi kontaan bu baax mënul nga woo ñeneen. te di wax sponsor yi daaw si leen. te di woo euh, waaw waaw am na solo mm-hmm. ëttu donc ah ëttu euh, ko wax Leyti euh, di ay frère macha allah di yëngu ci wàllu mode gis ngeen waxtaan bi am na solo j'espère bien que ni yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci univers mode bi gis ngeen seen bopp ci waxtaan bi jël leen li nga xamante ni moo si am solo te jàpp naa ni sax li ñu fi wax yëpp am solo ndax ñoom dañuy wax juste pour mode bi daal di jëm si kanam ça a été plaisir de servir Ouzin moo nekkoon ci présentation bi émission bi eh, gisee ak la tudd ki nga xamante ni moo nekk ci régie bi muy bisu sama jigéen bi nga xamante ni dama koy sonal eh, tout le temps borom janvier ak ki nga xamante ni moom mooy góoram bras droit am bras gauche am ñu koy wax Abdourahmane gars yi jaajëf merci beaucoup jaajëf